asalaamaaleykum mbokki Sénégal rawatina ñi nga xam ne ñi ngi suivre chaîne chaîne voix libre euh, di leen wax ngeen euh, abonné te ngeen bës cloche bi pour ngeen di am suñu vidéo yëpp à temps euh, tey nag dañuy ñëw ak ci li nga xam ne mooy actualité tey bi ndax gis nañ ki nga xam ni moo di président Macky Sall fële ci Ukraine muy rendre hommage ñi nga xam ni dee nañ ci guerre bi di wax ni nit ki balaa ngaa laax jaay da ngay laax lekk. ci euh, Macky sàll dafa daf respecté wul Sénégalais yi respecté wul Sénégalais yi parce que mënoo nekk yow sa réew am plus de quatre-vingts morts lijjanti woo leen déclaration sax defoo ko nga mën leen fee romb dem ba Ukraine dem di régler problème mu jàmbur kon cela veut dire que lañ doon wax rek mooy ñëwaat Macky Sall respecté wul Sénégalais yi joxu leen seen cër Sénégalais yi daf leen jàppee ni ay xar moom instant bi dafa takk buum seen baat di leen diri respecté wu leen lijjantiwu leen. te kon tey ji sénégalais yi war nañoo mën a xoolaat seen bopp war nañoo mën a xoolaat seen taxawaay njiit nag da ngay mat njiit te njiit balaa ngaa mat njiit da ngay yërëm sa askan jox leen li ñu moom waaye Macky Sall defut loolu Macky Sall respecté wu leen Macky Sall joxu leen seen cër ndax ñàkk leen respecté weesuwu tey nga daal di jël doomu aadama daal di koy xañ li nga xam ne mooy àq ak yelleefam mu ngi mel ni tey exemple ci président Ousmane Sonko. ndax lépp loo xam ne àq la ak yelleef boo xam ne doomu aadama am na ko tey jii nii ki nga xam ne mooy président Macky Sall daal di nekk njiitu sénégalais yi tey lépp dindi na ko ci àq yelleefu Ousmane Sonko ndax tey jii ki nga xam ni démb rek gis nañ ni ki nga xam ne moo di euh, jibi moom mi nga xam ne tey ravitaillement yi moom moo ko doon yóbbu bi mu demee di ko yóbbu démb dañ ko traîner du dugg yooyu noonu yëpp c'était juste que maanaam pour xoqatal ki nga xam ne moo di président Ousmane Sonko pour sonal ko Sénégal ñun ba réew lañ nekk ban réew lañ nekk rek ana Sénégal bi ñu xamoon ana Sénégal bi ñu xamoon ndax au moins sax ci président Ablaye Wade xawoon na tane tuuti mais avec Macky Sall moom suñu réew mi moom dafa mel ni que dañoo tourner la page parce que man gëm naa ni sax te yow say doomu réew donte kenn nit sax bu ci dee tey war nga koo naqarlu war nga koo naqarlu waaye gis nañ ni moom cela veut dire que moom lijjantiwul sénégalais yi amul sax seen temps amul seen temps parce que dégg ngeen ko ba muy wax nee na buy wax ci jaloog bi lay wax mais amul ci leneen loo xam ne dina ko dina dina wax à loo xam ne nekkul loo xam ne lu jëm ci dialogue bi la kon cela veut dire kii war na leen boppam bu yàgg war na leen boppam bu yàgg te njiit dangay yërëm sa askan dangay ngay yërëm sa askan waaye ñàkk yërëm sa wa askan weesuwut sa askan nekk ci naqar famille yi nga xam ne tey jii nii seeni doom dañ cee dee tey jii nga waroon mun leen xool tatagal leen dëfal leen mais cela veut dire que carrément que yow senegal ñoru la Macky sàll senegal ñoru ko amul temps wu sax Sénégal pour muy clair waaw ndax bu mënee jël suñu avion jël suñu kérosène jël suñu lépp mën a quitter fii nii dem ba Ukraine dem di ànd ak ñoom di leen naqarlul te nga bàyyi sa réew mi ngi mel ne tey jii nii yow nga bàyyi sa soow problème dem di lijjanti conteneur problème mu jàmbur kon war nañoo mën a xoolaat suñu bopp Sénégal réew la boo xam ne instant bi dictature cent pour cent xamatuñ ñun ban réew lañ nekk xamatuñ ban réew lañu nekk Sénégal bañ xamoon ak Sénégal bi ñu gis léegi diamétralement opposé ndaw yi sonn nañ ci ay marchands yoo xam ne yu kenn xamut di rey nit ñi di sànni ci géej gi di def yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen yi feeñ ak yi nëbb nañu xoolaat suñu bopp Macky Sall yërëmal sénégalais yi jox leen seen àq ak seen yelleef njiit bu la ko yàlla defee lépp loo def fi yomal xiyaam boo demee ya di nga ko réglawaat ak suñu borom bu di yaa instant bii nag yaakaar nga ni doo dee waaye lu yàgg yàgg yàgg yàgg di nga dugg ci biir suuf te boo demee di nga layoog sa borom kon xoolaatal sa bopp te nga yërëm sénégalais yi jërë ngeen jëf beneen